ab tukki nemmeeku ci ñi nga xamante ne ñoo bokk ci parti bi ngir waajal li nga xamante ne moo di élection député yi ñu seenu saafonte ak suñu euh, camarades yi nga xam ne ni ñoo nekk ci coalition ñoo nekk ci parti pur euh, saafonte ak ñoom sensibiliser leen euh, redynamiser leen ñu gën a yokk taxawaay bi

moo di Macky Sall danañu def tout mu dem avant 2024 te ni muy demee mooy lan su fekkee ne dem nañu ba am majorité au sein de l'Assemblée nationale dañ koy imposer cohabitation puisque suñu ko gagnee am majorité au sein de l'Assemblée nationale premier ministre bi ci ñun lay jógee te ñu jëlee premier ministre ñun mooy cohabitation dana am te bu boobaa moom li mu bëgg dootul mën a am li ñu bëgg rek mooy am. jàpp tukki nemmeeku ci militants yi ngir def bilan élection maire yu weesu waaye tamit daal waajal élection député yi ñuy dëgmaal.